dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëy di ñu xamal ne bu ñu deful ndànk ci élection locale yu nar tàng jër la ñu jëm ndax xicco ga ca nar a tàbbi ci gox yu bëri Walf Quotidien ne xoolal gox bu mel ni Saint-Louis am nu njort ne xëy na Mansour Faye doon fa candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci jamono joo xamante ne waa Yewwi Askan Wi ña nga fa ak seen candidat di Cheikh Bamba Dièye bu dee ca Ziguinchor xicco nar a am ci diggante Abdoulaye Baldé ak Seydou Sané njiital Casa Sport mi ñu njort xëy na mun na doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien ne bu dee ca Thiès Nord mbir yi mun na fa jàkkaarlool ci diggante candidat Birame Souleye Diop bu Pastef ak candidat bu mouvance présidentielle di Habib Niang yéen cabinet bu weesoo Thiès Nord jafe-jafe mun a am ca njagañaaw am ca Grand Yoff ak Bambey ak feneen ak feneen Walf Quotidien gis nañ ci yile élection locale coalition yi bari nañu lool te wute bu weesoo coalition Benno Bokk Yaakaar mi boot mouvance présidentielle bi coalition geneen samp yàggut di yeewi askan wi boot lenn ci opposition bi gis nañ fi coalition wàllu Sénégal mi PDS bu Maître Abdoulaye Wade bokk tey beneen coalition geneen juddu na ci géeg bi jëm ci wàccaay élection locales yi muy coalition la voix médiane bu professeur Amsatou Sow Sidibé ak ñam ca nar a feggool ci ay mouvement ak ay parti politique te fas yéene dagaan baatu askan wi réew mi quotidien xëy duñu xamleek ñeneen ñu nar a dagaan baatu askan wi ci élection locale yi muy taskatu xibaar yi yéen cabinet am nañu ci doon ay candidat ci seen gox waaye sénéra jot na leen a dànkaafu ci saasi xamal leen leen seen candidature googule mun nañ leen ko nangul waaye am na fu mbir yi yooyu le candidat te doon ay journaliste dootuñ leen a nangul ñuy wax ci rajo yeeg télé yi maanaam daañu jëmmi jamono sénéra ne propagande bi moom la ñuy bañ kenn ci candidat yooyu le te doon taskatu xibaar di Ahmed Aidara daldi xamle ne la sénéra nangulul taskatu xibaar yi waroon na ko yaatal ci yeneen koor yi ndax am na fi ay député yi fi toogal askan wi di politique am ci ay ministre yi fi politique ana lu tax sénéra bugg a jóg ngir gàllankoor taskatu xibaar yi ci élection locale yi ñu jëm doon lu jaaxal lool Ahmed Aidara ci biir yéene kaa bi di Vox Populi ñu am jaaxle di collectif gi boot juróom-ñetti kuréel yoo xamante ne ñu ngi ci société civile ne mënatuñoo nangu benn yoon Guy Marius Sagna caabi ko féete ginnaaw tax ñu jóg ñaxtu ngir sàkku ñu libéré maanaam may afia Guy Marius Sagna mi war a jàkkaarloo tey ak juge bi yooyu la kuréel te bokk ci société civile ne daañu amal yëngu-yëngal fukki fan ak ñeenti cooru octobre gi ñu ne ngir lu li xew ci réew mi moo xam ci nooteel ak fitnaal ak bundu xataal ba ci yoon gu tëddeewul njaaxaanaay yéen a kaabi di la soleil xëy duñu faram-fàcceel li tukkee ci ndajeb conseil des ministres yéen a kaabi na ci koppar yi Sénégal war a a kaabi ne googule projet de budget tënk nañ ko ci lu weesu 5150 milliards xëy di ñu leeralal li tënk ak li wundu bile loi de finance te mu ñeel budget 2022 cabinet yi le bëgg nañ ko dugal ci ay projet yu mucc ayib ba nguur gi lam ca jublu fexe ba yokkute am ci croissance bi mën na woon ci ci atum bëgg nañu mu yegg ci pour cent yéene cabinet las feelu ko di ñu xamal ne njiitu mi Macky bëgg na cee yaxanal dépense yi ngir gën a suqali koomu réew mi ci atum gi ñu jëm yéene cabinet le quotidien taxaw ci budget juróomi junni milliards maanaam njiitu réew mi Macky Sall ci diirug fukki at daal dina ful budget bi yéene kaa bi Vox Populi ne bari ay secteur yu fas yéene gis seen bopp ci bile budget te mu toll ci 5150 milliards ñu war cee suqali koomu réew mi di ci xaar croissance gu yegg ci 5,5 pour cent yéene kaa bi ne ci yile milliards bëgg nañ cee taxawu jigéen ñi taxawu ci xew ndaw ñi ba ci mi rawatina njàng meek njàngale mi yéene kaa bi di 24 heures gis na ci bile projet de loi a atum 2022 gi ñu jëm ci lool te bu ñu sukkandikoo ci jëriñu denk wàllu koomu réew mi di Abdoulaye Daouda Diallo yéenekaay bi di L'Évidence ne njiital AGETIP di El Hadji Malick Gaye soobu na ci béy waaram ngir suqali xëyu ndaw ñi gannaaw bu mu jëmmalee lancement projet IMO AGETIP ca Parcelles Assainies El Hadji Malick Gaye xamle ne ndaw senegal dañ leen a war a taxawu ci wàllum xëy bokk na ci ci bile projet IMO AGETIP daan ci tàggat lu toll ci ñeenti téeméeri ndaw ci wàllu pavage L'Évidence ne doon gâteau bu njiital AGETIP El mali Malick Gaye jox ndawu Sénégal yéenekaay bi di ci jamono joo xamante ne nguur gi mu ngi taxaw ngir ndaw seen liggéey bu ñu sukkandikoo ci li tàmbalee xew ci groupe des médias ma Bougane Gueye Dany jiite yéen cabinet nguur gi tëj na ràpp ay kontam dal di sàkk lu ëpp benn milliard Zik FM ak Tribune tax kuréel gi ñu duppee Alliance Sauver le Sénégal lu doxalinu nguur gi jëm ci groupe des média ne nguur gi lam cay nas jamono ji moo dina bëgg a sànk bile groupe de presse te lépp nguur gaa ngi ko lal ci wàllu politique yéen cabinet la mandaane nguur gi day bàyyi ba jaan ba matt ba dem ñu doog a door maanaam njiit réew mi Macky Sall médecin la après la mort mu jot a ci taax yi faral di nërmeelu fii ci mim réew ba di jur musiba ak fitna yéene cabinet ba ca mujj mooy ab taaxu ñaari étage gàddaanu yàggut ci an belleer bellu toll ci juróom-benn doomi aadama faatu ca am ñu bari ñu ca jëlee gaañu-gaañu yu méttee métti yéene cabinet la mandaane tax njiitu réew Macky Sall jot na cee yëkkate ay kàddu daal di sàkku ci nguur gi ngir mu jël ay matuwaay ci taax yeeg tabaxin yi yéene cabinet libération ne docteur Diop amatul liberté gannaaw bu mu cartouché maanaam bu mu lajjee ci faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop moom docteur Abdoul Wahab Diop yéene cabinet clinique jàpp ca wookaam di fa faj ay feebar yu bëri rawatina di fa amal opération chirurgicale yéene cabinet ca lañ ko fekk mu doon yokkal ab soxna taaram ñu waxtaanoon ba juboo ci payoor gu toll ci 500000 yéene cabinet gannaaw opération ba ko docteur Diop defal ca la soxna sa jaare fa paralysé ay tànkam munatuñ woon dox ca la kalaame docteur Diop fu mbaxana doone benn libération ne mujjee nañ ko teg loxo moom docteur Abdoul Wahab Diop yéene cabinet ne am keneen ku ñu ko jël garab la jël def ko ci kuddu daal di ko naan ca la tàmbale onku di wàccu deret benoone muy faatu ci anam yu doy waar yéen cabinet waaja ko jaayoon garab ga di ab tradipraticien waaja ne yoonam newul ci garab ga defaru ko njaay rek la ci am source année li am ba des mooy teg nañ ko loxo ubbi ceeb enquête ci googule produit aphrodisiaque maanaam lay yokku ngóora am ku ko jël jubluwoon ci dégg waaw góor waaye ay mbokkam sigil ndigaale la ñu mujjee dégg